إلى أرواح أصحاب رضي الله عنهم أجمعين إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء المرسلين إلى أرواح آبائنا أمهاتنا إخواننا أصدقائنا أساتذتنا مشايخنا خاصة إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات من نعمة إلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين أصل من قصر المسلمين اللهم انصر من نصر الدين أصل من قصر المسلمين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 alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin illami alif liqa wa bil yaayi yusran sallallahu taala ala sayyidina muhammadin wa alihi tahirina ajmain allahuma balligh sawaba ma qara'nahu wa nuura ma talawnaahu ila ruyi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam wa ila ruwaaya ashaabihi radiyallahu anhum ajmain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 waqzul man xazalal muslimin amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin mbokki jullit yi ñi ngi leen di nuyu di leen sant di jégali ci kàddu yi ndax waxtu wi dafa xaw a xat te dañoo waroon a def ay waxtaan ci ñooñu tuddoon nañ leen faaw rek ñu sànni si ay kàddu donte juróomi minit la ñu jégaluñ so waaye li ginnaaw loolu nag ñi ngi sant ñëpp di sant imaam yi yëpp di sang ñi doon jàng alxuraan ñoom ñëpp commencé ci imaam bi nga xam ne moo njëkk a jàng xar moom mooy imam Modou Gaye Diaw di maam Gaye na te buñ ne imaam Modou Gaye Diaw ak waa Daara jaw diggante Baye Mbaye Diaw ak dëkk bi kenn ku ne xam ne lañ bokki kon nag loolu yal na yàlla dolli sutura rek ñu ngi leen di ñaanal loolu ak imam bi jàngi kii fa mu di imam kii waaye di sant dëkk yëpp ñu ngi sant ima say li tax mu bëgg a def nii dama ko bindul liste te bu ma ko defee damay am ñu ma fàtte loolu tax sama bëgg a ma bëgg a tourné du faaw ñu def nii waaw kon nag ñu ngi sant lépp sëñ Moustapha Guèye ak waa Ndella yëpp teewul si nañ fi ànd ak i rakkam sëñ Moustapha Guèye beneen bi teew na fi moom mépp ak oustaz Sall mi ngi jóge ba gëñ moom it teew na ak Alaaji Ibrahima Diallo ñoom ñëpp teew na Abdoulaye Diallo ak sëriñ Abdou Khadir moom mi nga xam ne moom it teew na fi sëñ taalo Diagne moom it sëñ Cheikh Daaru Fall nga xam ne Daaru Fall ak Daaru Jow yëpp benn lañ moo it teewu si na fi ak waa Daaru ak donga yi nga xam ne ñoo doon jàng ak El Ibrahima Diallo ànd ak Ibrahima xam ñoom ñëpp teew na si oustaz Barakante ñoom ñëpp teew nañ fi ñoom teew waa Kirpo sëñ Mbay di sëñ sëñ Malick si di xarifu sëñ Bay di si moom it teew sa mi ngi ni ànd ak di ay mbokk di di doomi ndey sëñ Fallou Meng nuñ di sant waa Daaru Fall ñoom ñëpp teew nañ fi waa Kër moor Samb ñoom ñëpp teew nañ fi waa waa waa Kirpo teew nañ fi noonu ko waa Saayula teew nañ fi waa Ngulum ñoom ñëpp teew nañ fi waa Ngingineew ñoom ñëpp teew nañ fi waa Ndengler ñoom ñëpp teew nañ fi waa Thiès teew si nañ waa Touba teew nañ waa Ndakaaru te man naa ñëpp teew nañ te dama ko jotu woon a bind liste ñu bañ juum ak waa Abdou sëñ Abdou Guèye kenn ku ne xam na ko kon boo Kër ma Madieng loolu moom waxuñ Kër Madieng ak yëpp ñëpp teew si nañ ñoom ñëpp gis naa leen xam naa leen ni ma leen niñ ma xamee ni laa leen xamee ñu ngi jéggalu ci kër ñu si tudd ñoom ñëpp ndax boo ne imam imam imam Diaw kon waa Guèye ñëw yëpp mën nañ see bokk nga den sëñ Abdou Khadre waa Guèye ñëpp mën nañ nga ne sëñ Moustapha waa Ndengler yëpp mën nañ see bokk waa Kër ma Madieng boo nee ñoom i yabal sëñ Cheikh nay waa Ngaar moom it ñëw na fi ma nga ñoom ñëpp teew nañ kon nag ñu ngi jég lool lañu si juum it ñu xam ne dañu bëgg rek ñu kàddu si waaye kon nag sëñ Moustapha nañ ñu ko ñaanal ñëpp comme leen daan wax daal ne leen deel ma ko ñaanal mooy kee sigil ñu xool la ku lu baax dañ lay xool waaw ndax da nga ne moon deel ma koo yaakaar ku ma demit ma dem ci yow wax ko mu wax la am na ñu la xam sigil jógal ñu xool la loolu jógal taxaw ba ñëpp gis la sëñ Tafa waaw parce que dafa nekk Thiès di liggéey waaye bi mu fa nekkee maa ngi koy wax ma nga ànd ak sëñ sëñ Abibou Diop ñoom ñu nekk ci ñoom ànd ak ay kilifa boo leen gisoon tey ay mag lañ yu yoo xam ne mënuñ sawaruñ dara waaye teroo ànd nañu moom waaye ndaw loo xam ne dafa nekk ci àll ba fële feneen lu mu xalaat fii la lu si ne xalaat na fi ca tey ma wax ko nag waxuma woon lii waaye demoon na ba xalaat ak man ay teew yu dem foras wala mi ngi ne ba yàgg mu xalaat daara def ko ba yàgg mu mu mu xalaat lii def ko sëñ Fallou Thioub mi ngi woote bay jooy nee na sëñ Moustapha nañ ko ñaanal ndax moom dañu dañu màggal ba fii mu ne ko sëñ tafaa mu ne da nga fonn maa juma yàlla dogal na mu doog ma ngay jooy fi mu ne maa ko démb barki démb xam naa tàngoor yi attanu ko nee na mi ngi leen di sant sëñ Fallou sëñ Fallou nee na xolam de mi ngi fi tey de mi ngi déglu tey ñun dañoo am ngànt boo xam ni manewuñu wax waaye lu métti métti rek ñu sànni ci kàddu tuuti ñu ngi siyaare bokki bi yi fi daje yépp di leen dalal di leen wax bismillahi rahma bismillah rawatina it sunu bokki taalibe yi bokki jullit yi bokki kilifa yi xam nañ ni bis bi bis bu xat la muy bisu ajjuma kenn ku ne am na yitte war a taxaw sa juma ñu dagg seeni yitte ak yend bi kon loolu amal luñ leen fay ñun ñi nga xam ni nag yàlla dimbali eh, dogal na kilifa yi yëkkati seeni kàddu yëkkati seenu liggéey tegoon ko ci suñu loxo ñu liggéey ko ba bis bi ak si tey ñu woo ci kilifa yëpp woo ci département de Guinguinéo woo ci réew mi yëpp moo taxoon tey ñu sant yàlla di ñaan képp ku fi dikk yal na yàlla faj say aajo ñun de suñu xal sedd na suñu xel dal na ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp kon lu ci des rek sëriñ ba seex euh, ngeen àggale ko ñu di ndax amuñu lu di ndigal ñi ngi jégglu ñëpp ñu ngi bar di sant it dëkkandoo yëpp comme ni ko seex waxee lii daal kenn ku nekk def na ci jëfam ak yéeneem bu baax a baax rawatina kilifa yëpp nag tey ne mënuñoo tudd tur yi waaye sëriñ seex ngeen jottali ñu tur yi kenn dëkk par dëkk ñëpp ñu jottali leen wóor nii la suñ xol sedd na suñ xel dal na ñun leen digal li rek biñ ko jotee ñu jëf ko ba mu toll fii yàlla dogal na bay boo nga ni def euh, Sénégal yëpp ngi fi boor bu ne ndaw jóge na ko côté bu ne ndaw nee na ko ànd naa ki nit dikk teew si bis bi ngir yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba rek tax kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bari ak ñëpp di baal ak ñëpp ñaari farata am mooy fardu haynin ak fardu kifaayatin farata joo xam ne daf laa war kenn mënu la koo defal baay du ko defal doom doom du ko defal baay mag du ko defal rak rak du ko defal mag koo xam ne jumaa ji jàpp na rek fardu ne mooy sa farati jëmm la sa jëmm ji moo ko moo ko moo ko mën a taxaw taxaw sa bopp fardu kifaaya nag mooy loo xam ne su waree ñii ñu nekk ñu nekk ca wàcc ña ña ca des su am néew noppalu woon fii tey am ci mbooloom ñu dem pour taxawee néew ba ñeneen ñu wàcc na leen su ko ñëpp bàyyi am bakkaar alxuraan mit masalan faaw am ñu koy jàng di ko taxawee su ko ñëpp bàyyi dañu am bakkaar jumaa nag fardu xay niin la jumaa kan la war góor la war joo xam ne ab mu kàllaf la kàllaf nag dañ koy misaal ci faaw nga am fukki at ñett wala nga am kàddu poqataan wala karawu naq wala ngay génn di gis man niyu léegi mu kàllaf nga mu kàllaf ma it na wér wérug yaram gu mën a teew ca jumaa ja waaye it na doon as gor na doon as gor nekkit koo xam ne dafa sax ca dëkk ba sax ca dëkk ba nag mooy su fekkee fi jumaa ji nekk ak fa nga dëkk am ñu wax sax na ñetti kilomètre bu laay boobaa jumaa ji jàpp na la soo ñëwee jàpp na la soo ñëwut am nga bàkkaar ndax bàyyi nga lu la yesoon borom sant ta nga gàntal ko kon képp koo xam ne dëkk ci tund wi jamaa ji sa digg ak jumaa ji ëpp mu toll ñetti kilomètre boo ñëwee jumaa jumaa war na la soo ñëwut jumaa jumaa war na la te yi wax na ci nga yi mu kàllaf di góor di ko du amul benn ngant bu lislaam nangu te doon as gor jumaa nag dëkk bi nga xam ne fi lañ ko war a def mooy dëkk boo xam ne ña fa nekk am nañu yéene sax fa duñ fa toxoo dëkk ba fa dëkk fa ba faw sartu mbooloo mi wax yi bari da ci am ndax Sidna Malik moom nee na ku am fukki nit ak ñaar ak imam bu leen jiite di foofa jumaa war na fa moom loolu la wax Abu Hanifa ne moom faaw nga am ñeent fukki nit ku ko mën a am jumaa war na fa wala boog saafi xiw ani fa moom ne mën naa yooyu sax fukki nit ak ñaar imaam fan malik fan la sukkandiku xam nga ñun sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy yàlla ajuma boobu mi ngi Medina mu am xat-xat ba mënu ko julli mu xibaar waa Madina ni nañ taxawal jumaa ku ñu wax Sahiid ibn Sarata moo ko njëkk a jullee Saïd na Saara tamit ba mu julli jumaa jooju matoon nañ ñeen fukki saaba kon kii wax ne comme bañ koy tàmbali ñeen fukki nit tàmbali kon jumaa faaw bi dem Medina ba ba muy dem ci yoonu Medina bani Salim fa la ko ajjuma dabe muy julli bu njëkk jumaa dañ daan julli ba nopp soog a xutba bi yonent bi julli jumaa ji ba toll ci di xutba am jëgg ju ñëw ca dëkk ba fëgg ne njaay mi ñëw na gaaya daw bàyyi ko fa moom képp mu taxaw wa tarakooka xaa imaa fam taxaw di xutba fa lañ ko bàyyi ñu wax nañ ne bañ dawee ña daw la fa des fukki nit ñett ci la tool ak moom fukki nit ak ña ak moom muy fukk ak ñett te teew dafa continuer julleem kon ñu ne moo tax ku ak ñaar ak imaam mën ngaa julli juma waaye fukki nit ña nag bu leen ci boole jigéen bu leen ci boole gone luñ ci gën a musaafir boo xam ne fam da ab dafay ñëw day dem mbooloo mi noonu lay demee fukki njëñ fay dëkk am ñu wax ne jumaa fu ñu koy def war naa doon bara boo xam ne suñ demoon ba dëkk bi jiyee am fi am ñu daw lijjanti loola man mbooloo mën a saytu seenu dundu ak jafe-jafe bu luñ ko mën a fekk loolu mooy sartu jumaa imaam bi faaw ñu am imaam imaam bi faaw mu xutbo kon boo loolu amee léegi ñu ne nañ xutba ba noppi soog a julli waaye dañ daan julli soog a xutba yàlla nañu subhaanahu wa taala ñii daw a ci la fi ngir njaay waaye ñii daw a ci la fi ngir seen gajj ba ca tool ba ñii tar tarde jumaa ngir dañu dañoo yendu ca seen tool ya ñii tarde jumaa ndax dañoo doon a dem soxla suñu war a doxi genge naw yooyu yëpp ci mi ngi bokk ci daw jumaa ngir intérêt àdduna kon lépp lu waay bàyyi jumaa ji war fii julli di daba loola te muy mbirum àdduna kese jënd wala njaay ak lu mën a doon am nga bàkkaar sang bu baax bi ci biir te gisaguñu ko waaye personnalité mi ngi ci sunu biir tabaarakallaahu ñi ngi koy beral nuyoo ñi ngi nuyu imam Cheikh jaw waaye tabaarakallaahu di nuyu imam Mouhamadou jaw ñu ànd ak moom jóge Guinguinéo muy sunu mag di sunu kilifa tabaarakallaahu kon li ñuy wax ci ndigalam lañ koo teg mu ñëw fii ngir lan mu ñëw fii ci imaamu ratib département de Guinguinéo ndax moo topp ci imam Serigne Babacar Sall dafa génn réew mi moom moo sës ci moom imam alxaaji malik bey topp ci imam jaw mi kon moom imam mouhamadou jaw su teewee imam ratib sëñ babacar sall teew na imam alxaaji malik bey teew na ñu représenté mboolem a imma yi nekk ci département bi yépp di nuyu tabaarakallaahu sunu sëriñ sunu mag alxaaji ibrahima sall tabaarakallaahu mi ngi teew di boroom xam-xam te su jëloon kàddu gi la muy wax mooy ëpp njariñ ñu li ñuy wax ndax ñu li ñuy wax dañuy ijjantu di nuyu alxalifa cheikh fa cheikh fàllu jaw muy xalifatul usra fii ci daaru jaw di ko beral cant ak nuyoo ak ngërëm di sant ñëpp